Amath Diouf euh, le coordinateur du mouvement Sénégal ma fierté aussi un responsable au niveau de la commune de Diamaguène Sicap euh, nekkoon ki aussi di coordonner les travaux de l'école Samsam 3. donc nous avons fait une inauguration au niveau de l'école Samsam 3 parce que l'école Samsam dafa école euh, depuis 2005 nous inondation commencé à faire nangu mu nekkoon école a 17 classes amoon plus de 2000 et quelques élèves. ñu demoon ba loolu yëpp ndox mi bi inondation amee ñu commencé di ñàkk euh, classes yi ci biir 17 classes yi demoon nañ ba ñàkkoon nañ daanaka lépp sur les 17 ñu dem ba école bi sax bu na bu bu nawet jotee ba école ubbi kenn dootul am foo jàngee xale yi di wër di taxawaalu. mu yàqu njàng xale ci ñu baree baree bari bi ñu gisee loolu en tant que ñun ay doomu commune Diamaguène Sicap Mbao ñu ne nag ñun lii waruñu toog di ko seetaan dañoo war a jël à bras le la situation de l' école sam seet naka la ñuy taxawee pour école Sam-Sam ñu mun ko defar bañ ko gisee aussi jog ca taxaw àndu si asi ak ay parents d' élèves ñun ñëpp ñu jóg takku fañu ñu ne suñu fa démé danañ ñu jappalé appuyer ñu ba ñu réhabiliter li nga xamné moy l'école de Samsam 3 bo xolé tay fiñu taxaw tay kenn mënu fi won taxaw ci ay jamono ndax ndox mu bari mais sumbu biñu ko sumbu ak ay jeunes yu déterminé yo xamné ci commune bi lañu dëkk ñu koy wax wa Casamance ci biir Samsam ñun ñëpp ñu takku def ci suñu am-am def ci suñu doolé uti ay partenaires comme FH, ak DG bi nga xamné moy DG Ciel Ouel ñom ñëpp dugal seen loxo bañ mëna a réhabiliter li nga xamné moy les six classes yi nga xamné c'est récupérable biñu ko réhabiliter défar nañu ko defar bu muccu ayib ba karole classe yi ba nga xamné ne xalé yi nawet bi weesu école Sam-Sam 3 mi ngi nekkoon ci jamm nekk xalé yi jang jang bo xamné ne bu dal la ba bo xolé ci examen yi ñu passé sax ñom ñoo jël premier au niveau de la commune de Diamaguène Sicap jël 3 troisième au niveau de l'arrondissement de Thiaroye mu nekk lo xamné ne kon wane na né ñun lañuy ñuy dafa am solo parce que éducation dafa nekk lo xamné ne base Manam pour defar avenir doomu Adama. et on peut pas laisser nos enfants nak, ñu dans les rues suba euh, ñu nekk ay vagabonds, wala ñu nekk ñoo xam ne ëllëg vraiment kenn du leen nawloo kenn du leen respecté ñun nak dafa nek une obligation ci ñun en tant que des responsables dëkk ci commune bi mais nek ay citoyens aussi japp ne suñu réew dañ ci am une obligation pour jàppale suñu askan dimbalé leen motax nak tay ñu ñëw inaugurer les six classes yi nga xamné ne nañ ko défar mais encore inshallah allah deux phases la woon première phase bi terminé won nañ ko moy réhabiliter les six classes mu déssé won ñu encore yenen six classes ak bureau directeur buñ wara défarat a rabbi tay encore dinañ def tamit pose première pierre tabaxat yenen six classes yo xamné dañuy tambalit wa liggéey bi danaka sax ci biir liggéey bi amna lo xamné commencé nañ ko moy buntu yi ak fenêtre yi pare na fi ñu taxaw tay liñu ko sëkkee rek tollu na ci presque cinq millions si nous taxaw des camions grava def nañ presque plus de 150 camions voire 200 pour que tay ñu mëna taxaw fi pour le moment li nga xamné mom lañu jotté défar bu parce que comme première phase la deuxième phase première phase bi danaka école bi lepp lañu changer liñ presque 10 millions liñ deuxième phase bi aussi liñ ci 10 euh, millions insha Allah, rabbi parce que bo xayma la cay wara dem ci ay buntu la ca wara dem ci ay ay ay table ban ak lenen ak lenen ak euh, lepp lu ci wara dem bi nga xamé ne paré nañ ak entrepreneur bi lolo la insha Allah, rabbi fi ak 1 mois bu neexee yàlla bi ji dañ ko jox ñi nga xamné ne ñoy yéré école bi insha Allah, rabbi waaw. Ah, c'est ça moy li ma la wax rek xam nga école dafa nek lo xamné mm, dafa am solo ci dundu doomu adama njang dafa am solo. tay suñu xalé yi demone nañ ba bu école ubé parents yi dañuy am problème parce que amuñu fu seen dom jàngee dañu muju dem ba yu obligé di transférer seen dom ci yenen école yo xamné sax presque di nga def ay 1 km pour mën fa jàngi mu nek lo xamné lolu da doon poser problème les parents amna ño xamné seen loxo jotul seen ginnaaw pour ñu mëna faire fayal seen i ñu jàngi lolu aussi nekkaat yenen problème kon donc lolu nak so amé gis-gis japp ne yow li ni kat nekul lu war éducation dafa nekk droit ci xalé bi pour mu wara dem école mu une obligation nous ñun tous ñu war que ce soit l'État wala ñun parce que nous fenn foo xam ne nous ko dem mais nous devons faire rek ñun la war État Nous wàccuñu ñu Nous sommes ay citoyen faire. yàlla may Nous ay possibilité ñu faire a nous def ci ay démarche ba def mu réaliser li nga ne euh, association des, des, des classes mm-hmm. on n'a pas vu les autorités locales. ni le préfet, ni le maire de la commune. waaw non xam nga xam nga loolu du problème ñun li ñu amal importance moy suñuy dom suñu njaboot Lolu moo ñu amal importance parce que bañuy sumbu école bi tamit ñun ñofi fi di fi fanaan. ba bu ñu nekk albati sax nekk gardien école bi rien que pour avenir suñuy dom ëlëk ñu mënu ko sam mënu ko sauver donc ñun li ñu amal solo moy xalé yi am li am solo aussi moy autorité yi moy l'IEF ñom ñep ñu ngi ñuy ànd ak ñun diñu gungé parce que lepp lu ñuy def ñom yegg nañ ko biñuy tambali tàmbali liggéey bi aussi dem nañ ba ci ñom waxtaan ak ñom xamal leen li nga xamné mom lañu la ñu mébét ñu encouragé ñu ci vraiment féliciter ñu ci ndax ku wax école samsam sam bu école daan ubbi rek ciowli école samsam sam la woon école samsam école samsam école samsam mais tay nak kenn déggatul ciow école samsam parce que école samsam nak nek na école bo xamné machallah tay ku fi ñew ni mu mel ak namu ci ay changement bu mag am na ci te la indi nag mooy taxawaay ak parlu boo ne parents d'élèves yi ak ñun ñëpp niñ ci taxawee ak ñoom ñoom ñëpp ba def am sant yàlla bu